waaye waaye waaye waaye fay ah di naan auzu bilaahi bismilaahi ndawal yàlla di leen naan comme ça suñu waaw ñu ngi ci jàmm di leen naan yo piden perena todos yo estay nacido para volver ah? waaw aram da ngaa roog a yëpp quoi waaw di ko naan nag xam nga la dal incha allahu rabi may ndam bilaay Zarko du bandi sax bu ñu nee ñërëb ñërëb ma xam ne li mu ne bilaay est-ce que est-ce ne instant yi moo ëpp doole Ada doole yàlla am doole yàlla ko am ñun ay bërekat mbër mbër benn mbër moom muy yàlla waaye Zarko dara dina xam ne nag daje naag Masiihu Dajjaal xam nga Masiihu Dajjaal Zarko boo ko la dajal bàyyi sëñ Bamba. combat bi si combat bu gaawee si kan la gën a arrangé. mu gaaw mu yéex préparé nañ pour loolu di ñaan yàlla may nu ndam bàyyi Seexul Xadim te incha allahu rabi ndam parce que waaw Ndakaaroo ñu yónni yaa xam te ñu borom kaa jël jox bàyyi am jàppoon mën na jouer dara si làmb ji. waaye gaynde adduna ko wani doole ko xakil nii ko duy duy loolu yaram sax barki alxuraan di wax gaayam ñaanal bambara yaatile na mbe fola mbe mbal moko nunu fola babaye ge tuba fo kene kene kii du bagage barke alquran volume moom volume air la yor sambara air la bilaa walaay waaw bu ngeen